donc nañu xam ne li ñu amee tey euh, cëru jamono la te seen tur itam jamono da koy téye ba tey ñuy ñaan rek ñuy féete ci wàll gi nga xam ni fu ñu tuddee seen tur ëllëg dañ leen ci teg xalaat yu rafet wala kàddu yu rafet ndax loolu lañ leen yéene moom la biral ci ay kàddoom donc di ñëw rek li mu waxaat ci président Ousmane Sonko nii c'est le symbole de la résistance c'est le symbole de la résilience ndax taxawaayam am na lu mu feeñal ci réew mi gulo de d'étranglement yi nga xam ni dafa poñe réew mi ba tax souvent ñuy dund ci wàllu ci guta taxawaay wooweekat moom la àndoon ak ay ndawam ay jigéen ak i góor ba tey yàlla dogal ñu jaay leen doole téye leen ci kaso bi tey di bés bi nga xam ni mooy mujj ci at mi di 31 décembre 2023 suñu xel ak suñu xalaat di dem ci ñi nga xam ni ñoo sekkoon liggéey bi te nekk ci kaso yi ah ñu amal leen taxawaay amal leen euh, takk suñu ndigg pour que lii ñuy sumb euh, incha allah le 25 février 2024 ñu am ci ndam ba ñu mën a génn dellu ci seen i njaboot donc loolu la ñuy leen di wax ñu téye mu dëgër te xam ne ñu ngi ñëw incha allah euh, yàlla dafa ñu ndam ñu génn leen ci fi ñu nekk. donc ñuy continuer programme bi jox ki nga xam ne moo di kàddu ci kàllaama anglais xaw ma nag nuñ koy ndax nasaraan la wala déet euh, donc dafa am solo li tax ñu koy def euh, ci anglais ndax yàggul ci jamono yii fan yi ñu génn fële ci états uni dafa am ñaari sénateur yoo xamante ni dañu bind kayit gu am solo yóbbu ko ci Sénat bi wax ci jalgat yi am ci réewum Sénégal ni ñuy foowee àq ak yelleef ni ñuy xañee ñi nga xam ni ñoo sëkk géopolitique bi wala ak acteur de la société civile ni leen di jaayee doole di leen xañ euh, seen taxawaay gi ñu war a am te ñun itam ñu bokk ci ndax looloo waral tey ji jaañu doole xañ suñu àq ak yelleef moo ñu indi tey ci ñu mën a euh, defee cérémonie d'investiture bi ci anam bi donc looloo tax souvent ñuy def kàddu yi ci anglais ndax àdduna bi yépp yàlla dafa dogal ku nangoo ku nangu ku bëgg ku bëggul àdduna bi yépp ci Sénégal guddi yu ñu toll nii baatu wala turu Ousmane Sonko la ñuy déglu donc jox kàddu gi suñu frère Dame ngir mu ñëw biral kàddu yooyu euh, texte d'investiture bi ci anglais. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Uh, I'm really glad and honored to be given the opportunity uh, to address the Senegalese community and the international community, as uh, the MC said. Uh, today, we are in front of a great situation. We are going to the inauguration of the greatest candidate of Senegal for next elections. and that candidate is named Mr. Ousmane Sonko. Ladies and gentlemen, members of the coalition, dear guests, dear fellow citizens, dear patriots, we members of the coalition Sonko President have the honor to bear today the inauguration of President Ousmane Sonko as the fifth president of Senegal in 2024. if you fully measure the scope of the stand, it must be acknowledged that the symbolic load is quite strong but above all historical. We must assume the task of investing a giant, a Wovi, son of Senegal, a great convicted patriot, a symbol of the awakening and flight of the African phoenix, I appoint Mr. Usman Sonko. We would like to do so with strength loyalty, honesty, sincerity, but above all, by duty of loyalty in the patriotic struggle for standing better and prosperous Senegal. We also do so in memory of all the soldiers of patriotism, democracy, and freedom, to all those people who have fallen on the field of honor, I mean the 1,000 people or more who are in the prisons and the 60 or 80 people who died because of their country and who are fighting so that we have democracy in Senegal and that we have peace in Senegal and that we have uh, development in Senegal and those people who want to appoint the Ousmane Sonko as their candidate and to prepare to elect him on the 25th of February 2022. You're right, Greece. Those people who died, those people who are in prisons, they have a single song, Free Usman Sonko. Free Usman Sonko. And Free Senegal. Free Senegal. Free Senegal. Free Senegal. Thank you. To their families, those people who died and who are in prison, to their parents, we convey the thoughts, our prayers, and our faithfulness. The only real gift we can give them is to free Senegal from the yoke of autocrats like President Macky and his team, authoritarians to build a rule of law that respects freedoms and guarantees good democratic governance. Considering that the official appointment of a candidate by a coalition of political parties constitutes a democratic tool, subject to the simple reading of the provision of the Constitution and the Electoral Code, considering that the pursuant Articles and of the Constitution and L121 of the Electoral Code the official nomination of a candidate in the presidential election by a coalition of political parties is one of the prior and necessary options for holding the presidency of the republic. Considering that the choice of the procedure of inauguration of President Usman Sonko is based on a technique of legitimacy and legality at a time of discredit of many political formations, and even more broadly of political uh, action in our country, considering that President Usman Sonko uh, and its technique has a certain specificity, but also above all, a genuine dose of originality in the Senegalese political landscape. Considering that the initiation technique of President Usman Sonko is an attentive and solemn mark of a democratic current, considering that this technique of investing the candidate of President Usman Sonko coalition, Usman Sonko has its origin in the investing process carried out by the Patriots on July and a total votes validly cast by all voters at the level of the different departments, coordinators, and the diaspora, they have decided to present and to introduce Ousmane Sonko as their candidate for the next election. Now, considering that the results achieved exceed all expectations, with all votes in favor of, them, uh, of candidate Ousmane Sonko, coronating the unavoidable success of the patriot leader, Considering at the end that it is therefore appropriate to note that the candidacy of President Ousmane Sonko has finally received common and massive support in Senegal heads and the political head landscape, bearing in mind that the political parties and associations present that the list has already been given by my predecessors. I don't need to come back on them. Formally established the President uh, Sonko uh, coalition considering that Usman Sonko has been designated as the candidate of the said coalition. Article 1. Mr. Usman Sonko, born on July in Chess, exclusively of Senegalese nationality, enjoying his full civil and political rights, is officially invested and declared candidate of the Sanko President Coalition 2004 the presidential election of 25 overwhelming majority of Senegalese people want Ousmane Sonko to be candidate for next elections. And they want to elect Ousmane Sonko the fifth president of Senegal. Please, dear judges, don't disappoint your fellow citizens and validate Sonko's candidacy and let, please, and let, please, let Senegalese people decide who is the next president of Senegal. Now, the last word I will say to Senegalese people, please go and withdraw your voting cards. and get ready to elect Usman Sonko on February Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Adam, for your kind, for your kind and uh, bright words toward the uh, toward the uh, President Usman Sonko, and I hope that the international community will get your words. So, thank you very much. <laughs> donc euh, jërëjëf daam kàddu yi am na solo euh, ñu continuer di wéyal euh, li nga xam ne moo di euh, jotaay bi fa yéene jox kàddu ndax euh, pare nañ ci li nga xam ni moo di texte yi di investir président Ousmane Sonko candidat de la coalition Sonko président 2024. donc ñu fas yéene jeexalee li nga xam ni moo di kàddu ki nga xam ne moom la ñu tabb mu jël ko baaxe ko jotaay bi itam baaxe ko askanu Sénégal. ñi nga xam ne ñu ngi seetaan fare ci réew mi walla bitim réew kàddu yooyu nag ki koy jottali mu di euh, Birame honorable député maire Birame Souleye Diop nekk ex ex candidat donc ñu koy jox kàddu mu jottali kàddu président Ousmane Sonko. Bonsoir à tout le monde, chers citoyens, chers patriotes qui nous suivez aujourd'hui. 31 décembre 2023. Je pense que la, le résumé de la cérémonie aurait pu être fait en deux mots. En deux mots, parce que si je dis investir et investiture. Investir parce qu'il s'agit de mettre toute son énergie dans une action, dans une activité, dans un projet. Ousmane Sonko a passé les dix dernières années de sa vie avec ceux qui ont cru en lui à s'investir dans cette mission pour redorer le blason du peuple et faire du citoyen sénégalais un homme fier qui irradie le développement du pays du monde. Le clou de mission a toujours été notre ambition de participer à un choix définitif. Il s'agit du choix qui va intervenir le 25 février 2024 et pour lequel le second terme intervient, c'est l'investiture. qui, nous le savons tous, est par lequel un parti une coalition de partis désigne officiellement un candidat à une fonction élective. Et c'est lui que 26, 29 organisations ont choisi pour y Il faut dire que nous tenons ici, là et à exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble du peuple sénégalais qui a massivement soutenu le président Ousmane Sonko pour toutes les épreuves qu'il a traversées injustement, détenues aujourd'hui par le régime de Macky Sall. Alors que nous l'investissons officiellement aujourd'hui et que nous lançons les activités de la coalition Sonko Présent 2024, nous ne pouvons oublier, comme cela a été dit et répété, les militants et sympathisants assassinés ou arbitrairement détenus dans les geôles du tyran. Face à un régime dictatorial qui a tenté d'entraver toutes les activités politiques qui ont été faites au nom du président Ousmane Sonko ou de la coalition ou de ceux qui ont voulu travailler avec lui, nous entendons aujourd'hui répondre de la manière la plus démocratique possible. Chers militants, chers sympathisants, sachez-le, La candidature du président Ousmane Sonko ne souffre d'aucun manquement et d'aucun doute. Ayez foi, ayez confiance. Son dossier est un dossier béton. Et c'est l'occasion pour nous, en son nom, de féliciter tous les hommes et femmes qui ont travaillé pendant dix ans et qui ont travaillé ces derniers jours, ces derniers mois, pour nous offrir une candidature aussi sérieuse. Et pour défendre cette candidature, il nous est important de faire un rappel que nous pensons utile. Il s'agit encore de trois choses. Il s'agit de l'humain, il s'agit du temps et de la responsabilité. L'humain, parce que c'est un homme qui choisit, c'est un homme qui travaille. Il a beau s'appeler citoyen, il a beau s'appeler patriote, il a beau s'appeler républicain, il a beau simplement s'appeler fonctionnaire ou juge ou magistrat, il n'est simplement qu'un humain. Ousmane Sonko a assumé son humanité en apportant un projet. il s'est battu pendant dix ans pour qu'on connaisse la réalité de ce projet-là aujourd'hui xel yëpp tàkk na les Sénégalais se sont là se sont appropriés du projet aujourd'hui il y a deux autres humains que je voudrais appeler pour le au nom et pour le compte du président Ousmane Sonko le premier c'est le militant c'est le citoyen c'est simplement le Sénégalais qui a envie que le Sénégal change il y a deux mots qui lui sont destinés. Mais l'autre humain, c'est celui qui tranche, le juge. On a parlé du juge. Je rappelle que les symboles de la justice, c'est une femme, le visage voilé, portant un sabre et une balance. Pour quelle raison Une femme, pour, ce que, pour tout ce qu'elle représente en termes de justice, en termes d'équité, en termes d'amour de son peuple. pourquoi le foulard sur les yeux pour simplement dire son impartialité du ma faral kenn damay àtte ci digg bi pourquoi la balance c'est le symbole qui renvoie à cet équilibre équilibre que l'on peut appeler parfois chez les mathématiciens équivalence et la dernière chose le dernier symbole c'est le sabre pourquoi le sabre parce qu'il faut trancher sans état d'âme Il ne regardera pas le plus fort. Il ne regardera pas le visage du plus faible. Il dira la justice. Et voilà pourquoi je comprends l'interpellation du doyen Guirassi, l'interpellation de Dame et de El Malik Ndiaye en l'endroit du Conseil constitutionnel. Dites la justice. Parce que vous êtes humain. Vous avez une existence répartie dans un temps. Voilà pourquoi j'avais dit humain, temps et responsabilité. la responsabilité nous renvoie à quoi La responsabilité nous renvoie au, au verbe répondre. On répond de soi, on répond de ses actes, on répond de ce qui nous est confié, mais on répond également de ses manquements. On répond devant le peuple, mais on répond également devant Dieu. Responsabilité. Et je ne suis pas seulement en train de parler du juge, Parce que Ousmane Sonko a un temps de vie. Le citoyen a un temps de vie. Le juge a un temps de vie. Parce que celui qui est au Conseil constitutionnel demain n'y sera pas après-demain. Il y a un temps où il faut assumer une responsabilité. Et au peuple, il a un temps pour assumer sa responsabilité. Et de la responsabilité du peuple, dans le temps qui est défini, dans le temps qui est défini, il s'agit aujourd'hui, dans les quelques 50 jours qui nous restent, d'aller prendre les cartes d'électeurs. Il s'agit dans le temps qui nous reste de savoir que nous voulons changer. Mais quand même, nous sommes humains, il y a un temps, il y a une responsabilité, mais il y a quelqu'un qui veut continuer son temps. Même si ce pas lui, c'est un des tiens qui veut continuer le temps. Il veut hypnotiser notre temps, il veut kidnapper notre temps et ne jamais assumer sa responsabilité devant l'histoire. ne jamais assumer sa responsabilité devant la justice, mais ne jamais assumer sa responsabilité devant Dieu. Il se trompe tout de suite, il faut qu'il le sache, mais quand même, on ne pas lui faciliter la tâche. Et pour ne pas lui faciliter la tâche, il nous faut surveiller le vote. qu'il n'y ait pas un bureau de vote où nous n'avons pas des yeux et des oreilles. Qu'il n'y ait pas un centre de vote nous n'avons pas des yeux et des oreilles. Parce que tout ce qui se passe dans l'angle mort de nos yeux, ça se fait contre nous. Il ne faut pas que pour ces élections-là, qu'il y ait un angle mort. Je parle de la région nord, je parle de la région est, je parle de la région centre, mais il ne faut pas qu'il y ait d'angle mort. On nous a interdit d'investir Ousmane Sonko à Acapes comme il l'avait fait au 15 juillet en pensant que c'était fini. Mais il ne sait pas, lui, Macky Sall, que nous avons blanchi sous le harnais. Les coups de boutoir, les armes à feu, les grenades lacrymogènes, le sang de nos frères qui tombe que nous voyons du matin au soir. La prison ne nous décourage pas. Nous, quand on baisse les pieds, c'est pour marcher encore. Quand on tombe, c'est pour nous relever. Nous ne tomberons jamais. Et la victoire est proche, proche. Mais nous ne sommes pas prétentieux. Et parce que nous ne sommes pas prétentieux, nous avons encore choisi de lui dire, vous nous avez interdit d'avoir accès au Fun City, mais ici on, on sera au Fun. on sera au Fun pour investir notre candidat, le candidat de Diomaye, le candidat de Abbas, le candidat de Guy, le candidat de El Malik, le candidat, le candidat, le candidat, notre candidat tout simplement. Mais écoutez, nous n'allons pas terminer sans lancer le premier élément de notre plan d'action. Parce qu'en nous interdisant de faire l'investiture à CAPES, en nous suivant pour fermer le Fun City, mais ils ne savent pas que nous, le territoire, pour nous, il n'est pas susceptible de limites. Notre détermination n'est pas susceptible de limites. il n'est pas encadré. On ne peut pas nous fixer de limites. Et parce qu'on ne peut pas nous fixer de limites, nous allons lancer aujourd'hui, à 20h, un concert de casserole. Nous, allons nous faire entendre par Ousmane Sonko de sa cellule. Nous allons nous faire entendre par Bassirou Diomaye Diakhar Faye de sa cellule. Nous allons nous faire entendre de la cellule de tous les détenus politiques. Il faut que Macky Sall entende du palais de la République notre concert de casserole. Parce que notre concert de casserole, c'est pour dire, pour nous, notre détermination n'a pas de limite. Pour nous, Ousmane Sonko est le choix du peuple. Et nous l'avons dit, une élection présidentielle dans ce pays-ci sans Ousmane Sonko n'est pas une élection présidentielle. Et la coalition Sonko président a décidé par son action de transformer coalition Sonko président en président Sonko la solution merci beaucoup. mbokki Sénégal mbokk yi ñuy seetaan mbokk yi ñuy wax aji bëgg sa réew ñun ñoo fi daje tey di tënk kàddu yi nga xam ne bii moo fi jib ngir xamal leen ni ñun ñi nga xam ni ñu ngi làmboo xel jomm ak fit di toppandoo. di roy ci suñu waa ji ñuy wax Ousmane Sonko ñoo fi daje ngir tey tabb ko def ko candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm seetlu bi nag daj na mat na pexe nguur mooy Ousmane Sonko du fi doonee candidat waaye li ñuy laajte di ko laaj bépp sénégalais mooy ndax dinañ bàyyi nguur ndax dinañ bàyyi Macky sàll mu ëpp ñu fulla fayda xel jom ak fit pour toog fële ne Ousmane Sonko du nekk candidat ñun fukki at ñuy yar di yafal projet fukki at ñu ngemb nit ba tey ci ca cappaandaw gi mun nañu ala mukk du fi amee ndax dinañ nangu lu mel noonu gëm naa ni yàlla sàkkul ci réew mi patriote buy nangu loolu di am waaye lii nag bu ñu bëggee jeexital biñ ciy xaar mu am maanaam ñu wëlbati turu coalition Sonko président def ko président Sonko ci février 2024 dafa am ay taxawaay yu muy laaj benn taxawaay bi ci jiitu mooy man mi sama xol di bas base ci ne bëgg naa Ousmane Sonko dama yor carte électeur naa ko denc bu wóor waaye ki nga xam ne bi tey dama ko dénk suma carte électeur ndax dama inscrit mu jël ko dagal ma ko ci waxande ci préfecture wala fu mu ko mënti denc ci Sénégal naa dem dajji waxande woowa jël suma carte électeur ngar dajjoo ko xaar bis ba ma jox ko Ousmane Sonko moo tax ñuy wax yéen ñi nga xam ni seen carte électeur yi ñi ngi nelaw ci préfecture yi ak préfecture yi na am fulla ju day ni ngeen wax Ousmane Sonko ne ko fee mu nekk pale bii mooy place bi ñu ko bëgg a teg te lii tax mooy ku nekk cotisé cotisation nag mooy ku ne téye sa carte te waajal muy benn ñaareel bi mooy saytu élection saytu élection ñun mënuñoo fexe ba matal ko li koy matal mooy képp ku nekk ci ñun jàpp ni bureau de vote ba nga ne yaa fa war a doon suñu bët yaa fa war a doon suñu nopp ndax foo nekkul ñu def fa loo xam ne lii ëllëg du doon di lay jariñ maanaam fu ñu nekkul ñu sàcc fa élection yi wax ji dañ koy gàttal te mu leer fu ñu nekkul fu ñu xoolul fu ñu amul représentant fal foofu la ñuy sàccee yi lii may wax nag du lépp lu ñu dund la li ci des gàttal suñuy kàddu rek mooy ñu wax senegal yi ne leen ñun dañoo waxoon ni dañuy investir Ousmane Sonko ñun ñi ñëpp fee ca ACAPES ñu woo suñu département yëpp ñun waa coalition bi suñu militants yi suñuy sympathisants ku ci nekk dagg sa paas teel a jeexal sa añ pour ne tey jii ci bis bii da ngay taxaw fii ñu investir Ousmane Sonko ñu ne ñu alam mukk du fi amee. ñu ne la bàyyi nañu la seen mbedd jël leen am nañu sañ-sañu daje ci bërëb boo xam ne du moomeelu kenn moomeelu ku fay la ñu fay dem toog fa ñu fekk ñu fa ak ay takk der nañu alam mukk du fi amee dàq ñu foofa. ni ay baado la na noom nangu ni doxandéem du tabax réew pas-pas boobu nag moo tax ñu ne danañ danañ leen ko bàyyi waaye tey 31 décembre danañu daje pour investir Ousmane Sonko mooy waral suñu toogaay bii mais bu noppee lii li ñuy laaj mooy ñu wax ni lii di xew benn ci li ñu bëgg xañ danañ leen wan ni ñun suñu pas-pas romb na fépp foo takk ñoom seen pas-pas ngir yàqal ñu ñun suñu pas-pas pour defar Sénégal romb na leen fanweer dem loolu moo tax ñu wax ñépp ne leen vingt ci tey jii nag ku nekk kër yëpp waxuñu kenn dëpp cin waaye ku ne am nga sañ-sañu jël su ko wéeru cin concert de casserole laaj bëgg nag mu yegg fee ci Ousmane Sonko bëgg nañu mu yegg ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye bëgg nañu mbokk yi nañ ko fëgg fëgg fëgg ba lalu bépp détenu riir mais yemoo ca loola nañ ko fëgg fëgg fëgg ba kenn du dégg kii fiy jógee di dem ñu fas yéene koo diral cin kenn du dégg li muy wax ndax sax lu weetaagoog moom salaamaaleykum wa rahmatullah euh, député maire Birame Souleye Diop kàddu yi am na solo fàttali rek plan d'action bi ci 31 décembre bi ku ñu xañ suñu solos mbir ñu xañ la sa solos mbir donc nag na na kubéeru kaw diir yi riir na casserole yi riir ba àdduna ñëpp dégg ko ñu xam ni am nañ lu ñu metti waaw c'est le seul message à la nation en attendant Euh, sénégalais yi dem jëli seen carte ndax lu am solo la ci li ñuy def li ñuy jeexalee xew-xew bi ñu ngi ci càppaandaw gi mooy euh, écharpe yi nga xam ni moom la ñu fas yéene woo ñi nga xam ni ñooy euh, membre te bokk ci coalition Sonko président 2024 ñu fas yéene ko def ànd ceeg Fatima Meng ak ñi nga xam ni ñoo fi teew te bokk ci coalition bi ñu fas yéene leen woo kenn par kenn ñu ñëw fii jox leen ko dañu commencer ak euh, euh, suñu frère camarade monsieur Moustapha Mbaba Girassi moom mi nga xam ni moo jiite set waaw euh, woo honorable député Guy Marius Sagna woo monsieur Mamadou Lamine Diante moom mi jiite mouvement pour une citoyenneté engagée àndu ndawle woo monsieur Ousseynou Faye M2R <laughs> donc moom su noppee dina agsi woo monsieur Ousmane Diouf moom mi jiite APJS woo suñu sœur madame Maymouna Bousso moom mi jiite force citoyenne waaw suñu frère monsieur Ousseynou Faye M2R ñu jox ko mu ñëw taxaw ma jëy Mbóoj mi jiite yoonu askan wi doyen ma jëy Mbóoj nekk mag mu am solo ci suñu liggéey di ko ñaanal yàlla gudd woo monsieur euh, Mohamed docteur RDS woo suñu camarade euh, Damboj coalition le peuple ñuy woo monsieur Ali Gueye moom yi nga xam ne moo jiite Front National ki ci topp di sëriñ Gueye moom mi jiite parti PAS moo ñu nar a jox PAS bi ñuy yóbbu ca ndam li 2024 allah woo nag ki nga xam ne ku ñu ràññee la muy tonton Ayib ni ko xale yi di waxee ci réseaux sociaux yi mandataire du candidat président Sonko <laughs> ñu ñëw ci ex yi ñu tuddee ex yi les ex candidats Eh, honorable député euh, Abbas Fall. woo suñu frère euh, El ex-candidat di woo ki ci topp monsieur Birame Souleye Diop honorable député maire président du groupe parlementaire donc ñii nga xam ni ñoo fi jot a teew ci euh, euh, bokk euh, ci coalition bi ak niñ ko limee sànq nekk na ñaar fukk ak juróom-ñeent parti kuréel yu ko bokk te incha allah am nañ yaakaar ni coalition bi dina gën a yaatu ndax gaa yaa ngi jege si di fugg di fëgg bunt yi ndax ndamu lii di am en 2024 incha allah sénégalais yépp ci ko bëgg a bokk rawatina parti yeeg mouvement citoyen yeeg mouvement associatif yi donc fas yéene jeexal jotaay bi di di sant ñëpp. Seydou Guissé sàll moom mi jiite parti Wareef mi donc fii lañ ko yemale mbokk yi fas yéene ko tëj ak la photo waaw woo nañ président Ousmane Sonko jox nañ ko écharpe moom itam kees bii moo ko jëmmal di ñaan yàlla mu génn gaaw ñëw toog ci en tant que cinquième président de la république bu Sénégal fi ñuy tëjee rek mooy benn vidéo boo xamante ni dinañ ko euh, wane mu jëmaat rek ci président Ousmane Sonko ak taxawaayam ak li nga xam ni euh, mooy géewu politique bi euh, bu ñu ci noppee dinañ ñëw def li nga xam ne moo di photo famille bi di leen fàttali nag naka sorool yi riira riira riir bu baax a baax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 Sénégal gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. Ah, am lépp tawfeex sëriñ bi mën a may.